diggante Boy Gueye Faye bu Jimbori ak guy gi 95 Mor Fadam arbitre sifflé na ñu ngi lewtoo Boy Gueye mi ngi accéléré guy gi guy gee ngi reculé Boy Gueye door na ko Boy Gueye door na ko guy gee ngi jàpp guy gee ngi wut fi mu jàpp Boy Gueye door na ko guy gee ngi wut fi mu jàpp Boy Gueye door na ko guy gi def na kaat appi daan nañ guy gi jël bu leer nañ Boy Gueye daan na ko Boy Gueye bu Jimbori rafetal andi at noom solo su ma yéenee nit lu bon yàlla naa jiitu man taalibi sëñ Babacar Sy laa te dama bokk fu jar a bokk ñu nampatal ma ci waa kër Sena sa Sadbo rafetal rek laa xam. lan moo tax doo daan di ciblé. eh xoo oh, dinaa daan ko di ciblé sama mag. ne sec oh, oh.